seen boutique médecine prophétique et traditionnelle di centre Ruqya de Kër Massar nekk fii ci jaxaay moo leen indil ay garab yu efficace yu pajum cosaan ak ay produits original yu ñu baaxoo ci pajum sunna maanaam doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci pàcc ak fagaru ngir am ci garab yi man ngeen premier fekk fii ci jaxaay ci deux voies yi première après rond jaxaay wala ngeen 33 875 10 20 wala 77 042 95 17 ak seen boutique médecine prophétique et traditionnelle du centre Ruqya de Kër Jamba jàmbat jeex dafa neex والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي إنترنت بقي سيفر شان بي دي ام ام اس ñoo ngi leen di دي di leen ziar dellu si waat nañ ak yéen mbokk yi ci seen beneen rubrique saafara si ngeen tey ñu war a continuer waxtaan ak yéen ci mbir yi nga xam ne moo mën a sabab seytaane songu nit ki ci wàllum feebar mbir yi nga xam ne moo mën a sabab seytaane dugg nit mbir yi nga xam ne moo mën a sabab seytaane jàpp la di la daaneel moo xam ci école yi moo xam lu nekkul ci école yi mbir yi nga xam ne moo mën a sabab nit ki di dund problème farrab problème coro rab nit ki di dund lépp loo xamante ne nii jëm na ci problème mu seytaane mbir yi nga xam ne moo ko mën a sabab ci yooyu lañu toll waxoon nañ ci sunu vidéo yi passé limoon nañ ci ñaari mbir te jeexagul ñaari mbir yooyu bi ci jiitu wax nañ leen ne mooy musique musique euh, képp ku ko mën di déglu ak ko mënti doon euh, aspect bu am doole la pour xëcc seytaane jëme ko ci yow pour xëcc seytaane jëme ko ci yow moo xam musicien nga waykat nga wala da nga koy déglu ak xeetu musique bu manti doon day xëcc seytaane di jëme ci yow mi koy déglu mbaa yow mi koy def beneen ba waxoon nañ leen ne te mooy moo nekkoon ba ci jiitu mooy ñàkk diine ñàkk diine ci anam bu manti doon ak ci dimension bu manti doon aspect bu fondement aspect bu fondamental la pour xëcc seytaane jëma ko ci yow loolu nag am na ay tegtal yu leer ci alquran yoo xam ne suñu borom donc donc junj na ko képp koo xam ne diine manqué na ci yow képp koo xam ne euh, diine sori nga ko xamal ne loolu bunt bu yaatu la pour seytaane jàpp la pour seytaane ja song la dugg la saa yu ko nammee ci coobare yàlla beneen ba mooy dem ci njabarkat yi bokk jullit ñi dem ci njabarkat yi waxoon nañ ko sunu vidéo bi mujj sax fa dañ yemoon dem jëfandikoo mbirum njabar moo xam sangu ci tuur yi sangu ci xamb yi sangu ci wanak yi nga xam ne day am ay njaq di sangoo ay saafara yu forox saafara yu xasaw bépp càngat buñ la jox nga xenc mu xasaw rek xamal ne loolu mën na dolli mën na laa dolli ay seytaane waaye mënu laa dàqal bépp benn seytaane li ko waral mooy seytaane sobe la loolu la loolu la yàlla wax seytaane sobe la seytaane dafa bëgg lu xasaw dafa bëgg lu xeeñ dafa bëgg lu tilim seytaane bëggul lu set seytaane bëggul lu leer seytaane dafa bëgg lëndëm loole moo tax lépp loo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo mu xam na nga koy sangoo wala lu mënti doon waaye mu doon lu tilim ndox mu tilim mu salte waaye bu xesaw xunnu loolee surtout nag ki gën a ñàkk xel mooy ki nga xam ne nee na yooyaay day jëfandikoo yooyu wu ngir faju ngir muslu waye yegul ne mom yoyé da koy jëfëndiko ngir gëna doli dolli ak tilim gëna doli dolli ak xassaw ndax seytaane dafa bëgg mbir yu mel euh benen mbir bi nga xamné ne fa lañu tambalé tay moy mbir yi nga xamné ne sabab setan man la japp man la song moy wirdi yi nga xamné ne ñu ngi koy joxé ci réseaux sociaux yi wala sax nga dem ci ab sëriñ mu daal la koy jox euh, nga tambalé diko def loolu lu mëna tagat mu jëm ci yow la ëmb bi nak man na jaaxal ñu bare bare waye bu ñu defee ndànk rek dana ko leeral ba mu leer bu soba yalla donte am na ñoo duñ ci d'accord ak man te loolu amul problème xam-xam mom ala kulli hal non la dëkke xam-xam mom da ngay wax rek ñi d'accord ñi baña d'accord waye ku déglu rek te ànd ak sa xel te xol li xew ci société bi di nga xam effectivement euh lima la wax amna fu ma tek mbokk yi wirde bokk na ci mbir yi nga xamante ne nii ñu baree bare bari ñoo ngi dundu tey ay problème mu bàyyi ko ci seytaane la leen ko yóbbee gannaaw dogalub yàlla mooy wird yi nga xam ne ñoo ñoo leen koy jox loolu nag wax naa ci lu bare bare ci sama compte TikTok leeral naa ci ay leeral yu am solo foofa dina am yu ma ci bamtu fii mbokk yi wird comme ni ngeen ko déggee baat bi ñëpp ko xam moo xam ay baat yu ñu lay jox nga yor kurus di ci lim di ci def ay lim yu bare bare bare bare par bés wala par ngoon wala par MMS Pro 221 yooyee wird xamal ne lépp lu ci wute njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam danse képp lay jural nit ki waaye du jural nit ki njëriñ wird mooy lan wird ni ko baatu olof di ko baatu arab bi tuddee mooy nit ki lu muy def di ko baamtu ak bamtuat par quotidien masalan tay julli wird la parce que da ngay julli tisbaar da ngay julli suba julli tisbaar julli timis takusan timis ge bu suba nga defat ko bu suba nga defat ko bu suba nga defat ko tisbaar fajar nga julli ñaar rakka tisbaar nga julli ñeent rakka takkusaan nga julli ñent timis nga julli ñett euh ge nga julli juróomi nga julli ñent rakka lim yoy nga xamne dañ la ko tégal ci julli gi nga xamne juroomi julli la par bes julli gu nek fajar gi ñaar rak la tisbaar ak takusan di ñent rak ak ge timis bi di ñetti rak lim yoy nga xamne dafa and ak jëf ji ñeme woo ko soppi mano ci soppi dara waye waxtu yi fiñ ko tek ñeme wo ci soppi dara sinon sa julli du bax fajar gi fimne bo ne boo nga ne man fajar mom damay nelaw damay bàyyi ba 11 h ma dogu julli sama fajar tàkkusaan tisbaar ñu ne la dee nga ne déedéet man tisbaar moom heure boobu damay tayal damay bàyyi ba tàkkusaan mu boole leen ñoom ñaar wala damay bàyyi ba timis ma julli sama wala ma bàyyi bay tëdd rek su ma bàyyi damay bay tëdd ma raafal waxtu yëpp daal di koy jullee ndox maanaam loolu kenn sañu ko wala boo ko defee yi nag boo am ak julli kon wirdi gi dafa ànd maanaam wirdu julli dafa ànd ak lim yi loolu mooy wirdu mooy loo xam ne ay pratique yoo xam ne dañ la koy jox mu ànd ak ay lim ànd ak ay waxtu yoo xam ne ñema wootee changé dara nañ la ko joxe noonu nga koy defee boole lim ya nga xamante ne nii jox nañ la ko te mu doon loo xam ne da koy def bés bu jot balaa ngaa tëdd ci lal boo yeewoo ak ba bi ngay yeewoo balaa ngay ci lal faw nga def ko loolu mooy wird am na ñoo xam ne sax dañoo am wird ci sport dañoo am wird ci sport am na ñoo xam ne saa bu ñu yeewoo ci lal balaa ñuy tëdd danañu daw luy tolloog 7 kilomètres mbaa ñu euh, euh, euh, mbaa ñu daw luy tolloog 10 minutes de courir mbaa ñu dox def marche luy tolloog 30 euh, minutes de marche nga xam ne bés bu jot dañ koy def loolu ak wirdi la am na koo xam ne moom dafa am wird ci sport ci tàggat yaram du ko bàyyi euh, am koo xam dafa am wird ci naan ndox naan ndox am na koo xam ne moom li mu aadawoo mooy saa yu xëyee dana naan kaasub ndox moom loolu moom du ko bàyyi mu benn kaasub ndox moom du ko bàyyi lu tax mu fixé ko ci kaas kooku ay lu lu ñu natt la mu teg ko fa waaye benn kaas bi moom lu mu nattal boppam di ko teg kon wird mooy li nit ki aadawoo di ko defal boppam bés bu bés bu jot loolu nag daf ci am loo xam ne mbirum diina lay doon léeg-léeg du doon mbirum aada yi naturel nii rek nga xam ne comme ni ma joxe misaal ci koo xam ne dafa aadawoo tàggat yaram daal di ci nattal boppam ab lim boo xam ne wala ay minute wala ay waxtu yoo xam ne moom la lay def bu mbir mi concerné mbirum diine na nga xam ne ak jaamu yàlla lay tudd ki koy def da ciy sàkku yiw loolee dafa war a doon lu bàyyeekoo ci rasulillahi alayhi salaatu wasalaam yonent bi jàngale na ay wird yoo xamante ne nii dafay amal njëriñ nit ki wird bokk na ci ñetti lixlaas ñetti falaq ñetti naas yonent bi nee képp ku xëy fajar gi nga jàng ko boo xëyee fajar jàng ñetti lixlaas ñetti falaq ñetti naas yàlla dana la musal ci lépp luy lore boo julee tàkkusaan nga baamtu ko ñetti l'ikhlas ñetti falaqi ñetti nas yalla ya dana la sam musal la ci setan boy teud ci lal yaronte bi ya. ne la yëpp mooy ñetti l'ikhlas ñetti falaqi ñetti nas dégg nga bo paree nga tok ci kaw lal bi dal di wax eh, subhanallah 33 fois allahu akbar eh, alhamdulillah 33 fois allahu akbar 34 fois yaronte bi ne képp ku def lolu manam do nelawé ak choono bepp choono bo xamné amon nga ko yalla da la koy wàcceel balaa ngaa tëdd di nelaw te yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yëpp bu dee wird ginnaaw julli yonent bi alayhi salaam mu ne la boo boo sëlmalee boo jullee ba sëlmal jàngal euh, allahu akbar 33 fois alhamdulillah 33 fois euh, non subhanallah 33 fois alhamdulillah 33 fois allahu akbar 33 fois nga tëjee ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir loolu ak wird la boo xam ne yonent mu ngi ko jàngale ci ginnaaw boo jullee ba noppi xoolal wird yi nga xam ne yonent bi da koo jàngale wirdi yi ngay def boo jullee ba noppi wirdi yi ngay def booy waaj tëdd wirdi yi ngay def boo yeewoo ci lal même boo yeewoo am na ay wird yu yonent bu jàngale am na ay ñaan booy génn sa kër am na wirdi am na ñaan bu yonent bi jàngale dégg nga am na booy booy boo amee oto bu bees boo amee kër gu bees booy dugg ci bërëb boo xam ne mosoo faa dugg booy tukki boo wàccee ci marché boo wàccee ci avion boo yéegee avion boo yéegee oto yooyu yëpp ay xeeti wird la yoo xam ne yonent bi jàngale na ko boole ko lim même ñaani suba ak ñaani ngoon dafa am ay wird spécial yoo xam ne yonent bi da ko jàngale suba si ak ngoon si yooyu wax am na xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim xam ne yonent bi ne na nga def juróom yoon ci suba si juróom-ñaari yoon ci ngoon si boo ci yokkee du baax boo ci wàññee du baax lim boobu la mën a àndal lim boobu muy limu juróom-ñaari yoon képp la mën a àndal yonente bi saa sallam joxe na wird ci salaatu ala nabi allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wird woowu nga xam ne yonente bi lam ca wax mooy képp koo xam ne yow yaa xëy nga julli ci yonente bi fukki yoon gis nga moom li mu fukk la joxe boo ëppalee du baax boo wàññee du baax maanaam fukk yooyu rek la wax nga yemale ko fa lam ca teg mooy ku ko fonk boo faatoo mu ràmm la moom rasulillahi alayhi salatu wasalaam maanaam saa yoo xëyee ne ne ne allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad benn allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ñaar def ko ba muy fukki yoon nga aada woo ko def ko sa wirdut bopp boo jullee fajar def ko boo jullee takkusaan def ko yonent bi nee na ku faatu ci loolu sax ci ba faatu nee na maa jàpp sa loxo dugal la aljanna dégg nga joxe na wird ñetti lim muy radaytu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan radaytu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan muy ñetti baat yo xamne ne koy wax ñetti yoon suba ak ngor bo jullee fajar ak bo jullee timis même yow mi nga xam da nga gis règle am ay ngànt sax man nga ko wax inshallah allah lim wird la bu and bo xamne dafa and ak chiffre 3 and ak ñetti baat ñetti euh, ñetti yoon bako wax bo yoké baxut day du bax bo wañé du bax xaw nga yem fi la yonent bi yem loo muy ñetti euh, yoon nga ko am droit wax lan moy ndirign bi ndirign li mooy yonent bi ne kep ko sax ci li képp ko sax ci li boo ñëwee yowmal qiyaam yàlla warlul na boppam dugal la aljanna allahu akbar kon gis nga remède yi nga xamante ne nii maanaam wirdi yi ni ko yonent bu jàngalee ak lim bi nga xam ne moom la ko booleel xoolal wirdi bi gën a bari ci lislaam mooy wirdi bi nga xam ne téeméeri yoon la yem wirdi boobu mooy wirdi bi gën a bari ci lislaam mooy téeméer yoon même wirdi bi ngay def ginnaaw boo jullee ba nopp sax motub téeméer motif témèr ndax 99 la parce que 30 fois 3 99 la moy bi ngay wax subhanallah juroom 33 fois allahu akbar 33 fois alhamdullilah 33 fois soko bolé moy 99 fois égul sax 100 motax ñu la nga motalé ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la mu lokal mulku hamdu wala kulli shay'in donc wirdi bi nga xamné yaronte bi jangalé nako té mu té mu mot 100 mu mot 100 amul 101 amul 112 amul 111 100 kep la yam té moy wirdi bi gëna gudd ci l'islam bo xamné yonent bi alayhi salaam jàngale na léegi nag loolu mooy lu wér ci diine tàmbalee cent un ba cent loolu képp mooy lu yonent bi jàngale te ay wirdi la yoo xam ne képp ku ci jël benn saxoo ko rek gis ci njëriñ ak bu mu mënti doon boo mënee def yëpp baax na boo mënta def yëpp amal yoo xam ne da koy jël sa ko sa bopp respecté ko suba ak ngoon di ko def def ko sa wirdi di ko def incha allah njëriñ képp nga ci jëlee lu ciy lore amul. ginnaaw lii nag baatu wird ci boppam dafa am ay nit ñu ko jël di ko jëfandikoo dafa am ñoo xam ne dañuy dem ca àll ba rabbu seeni wirdi bopp yoo xam ne jëlewuñ ko ci alxuraan jëlewuñ ko ci sunna rabbu seeni wirdi bopp ànd seeg seeni sëriñ ñenn ñi ànd seeg seeni taalibe ñenn ñi ànd seeg ñun ci mënti àndal rabbu ay wird yoo xamante ne nii kenn xamut ñoom fu ko jële indi teg ko ci penc mi daal di ne wirdu bàyyi di wa ngi nii moo tax wirdi dañ ko amul tur ñoom parce que jógewul ci diine jógewul ci lislaam yonent bi jàngalewu ko te yonent bi lépp lu mu jàngalewul ci diine du compter lépp lu yonent lépp lu ñuy def ci diine ji te yonent bi jàngalewu ko rek baaxul loolu mooy wax ji gën a leer gàtt lépp lu ñuy def ci diine te rasulillahi jàngalewu ko baaxul loolu moo tax da ngay gis koo xamante ne nii day am ab wirdam day ànd ak ay mbokkam baa mu ànd ak ay waa këram ñu am seen wird teg ko ci penc mi du ko jàngale wirdu woowee day am ay particularité particularité ba ci jiitu mooy mënoo koo am maanaam daa am fooy dem pour am ñaan ndigal da ngay dékku ne man damay ñaan ndigal ci wirdu wi damay ñaan ndigal loolu mooy tekki ne kon gis nga wirdu yi ma la njëkk a wax yooyu yonent bi ko jàngal yooyu kenn ci droit ñëpp a ci yem amul ay ñaan ndigal ak amul wirdu bàyyi déedéet amul ñëpp a ci yem ndax rasulullah jàngale waaye wirdu yi nga xamante ne ni dafa am ñu ko moom am ñoo xam ne ñoo ko fent ñoo ko xalaat ñenn ñi gént ñu indil leen ko dégg nga muy seen wird dégg nga ñenn ñi xaw euh, xawma fu ñu ko jëlee daal di koy indi ci penc mi wird woowu benn mooy mënoo koo jékki-jékki def day laaj ndigal soo ko bëggee def daa am fooy dem am ci koo jokk mu daal di lay jox wird wi ba pare jox la ci ndigal jox la ci li nga xamante ne nii moom mooy moom mooy isnu nga mën koo def muy ay baat yu yu limu yu ñu takk te léeg-léeg day ëpp li nga xamante ni mooy cent day doon ay baat yoo xam ne dafay ëpp cent jëm kaw ay cent cent quarante trois deux cent nangam trois cent nangam cinq cent nangam quatre cent nangam quatre cent vingt huit fois quatre cent onze fois quatre cent dix fois gis nga jëm kaw ay cinq cent nangam yooyu yooyu lay wax dégg nga ñaareel mooy day doon wirdu woo xam ne dañuy xam wirdu bi ki ko moom kan la dañuy xam ne wirdu bi diw sàngam mooy ki ko moom diw sàngam te léeg-léeg sax ñu tuumal ci yonante bi léeg-léeg ñu ne wirdu bi ci yonante bi la jógee koo ci yonante bi amul secret loolu ñëpp ko ànd xam waaye wirdi yi nga xamante ni ay wirdi bàyyi diw la te dëkk sàngam wirdi yooyee ay xeeti wirdi la yoo xamante ne ni ki koy jëfandikoo maanaam seytaane mën na cee am yoon ci moom te loolu man gis naa ko ba tey fi may jeexale parce que waxtaan wax wi wax ci des na lu bari waaye vidéo bi mooy waaj a gudd fi ma siy jeexale expérience man mos nañ maa indil koo xamante ni ay mbokkam lu nekk lañ daj ci moom xel mi dem maanaam ci wirdi benn ci wirdi yi ma wax ci la nekkoon benn ci wirdi yii ma wax ci la nekk nekk ci wirdi bi ñu jox ko mu jënd kurus gu gudd nekk ci wirdi bi suba ak ngoon fajar tisbaar takkusaan lu ne rek mu nekk ci wirdi bi maanaam boo ko nuyoo du la fay li gën a nekk problème ci wirdi yi mooy loolu mooy dañ lay gëmloo ne wirdi bi boo ko wér doo wax doo wax te wirdi sunna la ak wirdi bu mënti doon sunna la du farata maanaam même wirdi yi yonent bi jàngaleel boppam sax du farata amul benn wirdi boo xam ne farata la wirdi yépp sunna la wird yi yonent bi jàngalal boppam sax laa wax sunna la te fay nuyoo farata la maanaam boobu nit bu la fekkee nga yor kurus di wird bu la nuyoo da ngaa war a dagg wird bi fay parce que fay nuyoo moo ëpp doole wird nuyoo moo ëpp doole wird nit bu la nuyoo da ngaa wax wa da ngaa war a dagg wird wi noppi ci li nga doon wax nga daal di koy fay boo noppee nga continuer mais xeeti wird yooyu may wax boo waxee day yàqu mbaa nga tàmbaliwaat zéro xeeti wird yooyu am na wird yoo xam ne dañu la na nga toog ci suuf doo toog ci kaw sañoo toog ci kaw nii di wird da ngay da toog ci suuf ngir def ko am yoo xam ne dañu la na jublu penku am yoo xam ne dañu la da ngay sol bu weex def am yoo xam ne dañ ne boo koy def bu lekk yàpp fekk yaa ngi def wird bi maanaam boo jàppee ci wird bi ba keroon ngay pare waroo lekk ndawal am yoo xamante ne nii maanaam dañ la naan bul dugg ci oto maanaam lépp luy daw gaalak ak batoog otoog fasak mbaam yooyu lépp luy daw daal boo ci toogee waroo koo def am yoo xamante ne nii maanaam dañ la naan boo koy def jigéen ju ëmb waru koo def wala jigéen ju amagul doom waroo koo def ndax boo ko defee mën na tëj si biir ba doo am doom yu ni mel gis na maanaam ñoom seen jëmmi bopp ñoom saxal nañ ni wirdi wi am na ay lor yu ci mën a jóge ngir lor la bu fekkee ne mode d'emploi bi ñu leen jox bi ñu leen bi ñu la rabal ñoom jox la ko mm, boo ko faussé mën a loolu la muy tekk mooy jógewul ci rasulillahi la muy tekk mooy du diine ay fent la ay ñu créé teg moo tax li ci gën a tënk mooy nga xam ne bépp wirdi bu ñu la jox bu ëppee téeméer rek xamal ne jógewul ci rasulillahi baaxul te wirdi yi nga xamante ne nii moo jóge ci bàyyi diw ñëw wirdi yu ëpp ay téeméer la wirdi yu nga xam ne ay téeméer lépp beneen bi ci des mooy lépp loo xam ne ñoom ñu ko ci sawe euh, nekkul loo xam ne lu authentique la am ci koo xam ne dañ kaa joxe wirdi wi muy wirdi di wirdi ba bopp bi dem bopp bi tourné muy wax ay wax yu doy waar maanaam dof complètement ñu daal li koy indil bi ma ko indilee ma lu nekk laa dacc ci moom maa ngi ko tàmbalee maa ngi ko tàmbalee MS Pro 221 billahi lazi la ilaha illa wala laa wax li may wax du ay tuuma du ay sos du ay dara alquran laa téye sama loxo alquran laa téye sama loxo di wax maa ngi ko tàmbalee moccu ginnaaw tàkkusaan waaye mocc bi dem na ba 4 heures du matin ba 4 heures du matin xale bu jigéen la su ma waxoon turu dëkk bi mu jógee sax ngeen xam ko turu dëkk la boo xam ne mbirum wirdi yi siiw na fa lool fa la jóge ñu indi ko maa ngi ko tàmbalee mocc ginnaaw tàkkusaan lan moo ko indil ma tiim ko di mocc quatre heures du matin dégg nga lañ pare ci mocc mi ngir mbir mi ni mettee ak ni mu dëgëre bopp waaye ci biir mocc mi yu garaaw ay ay ay xew-xew yu doy waar yoo xam ne xew na fa te du man kese maa nekkoon ci salle bi ma ko doon moccee ndax damaa dugaloon ay mbokkam yi mu àndaloon pour ñu xool pour ñu fekkee teewe waaye bi ma ko moccee maanaam suñu borom yàlla mi nga xam ne moo am kattan di def li dindi moo wax loo ab seytaane ci làmmiñu ndaw si seytaane bi benn mbir dong la doon wax mooy dañ maa yebal ngir ma toog ci dënn bi ngir ma sànc ci xol bi ngir mën a garde wirdi bi nga xamante ne nii jël na ko di ko def ma ne kon daa jël wirdi mu ne mu waa daa jël wirdi ca dëkk sàngam kër baay diw la jële wirdi sëñ diw sàngam moo ko jox wirdi bi wirdi wi def na ko ba fan yii rek feeg ñetti fan ci la waroon a pare ci la waroon a pare waaye muy jàmbat bopp buy metti xel mi xaw a dem parce que yi muy gis moom moo tax ñu daal ko indi bi ñu ko indee may jàng ci moom alxuraan ba yàlla feeñal saytaane bi ci ci jëmmi ndaw si seytaane bi wax ci ñu la daal di fay révéler ay secret yu doy waar yoo xam ne làqu na ci wirdu woowee làqu na ci wirdu woowee ba yàlla dogal alhamdulilah ndaw si yàlla dafa ko tawfeex jamono ji may wax dundkatu diine bu mag la dundkatu diine bu rëy rëy la mu ngi dund diine ju leer naññ tegu ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam te am benn te looloo ko taxoon jóg parce que ñu baree bare ñi nga xam ne ñu ngi dëgmal wirdu yooyu wallahi leen tax a la ñuy seet yàlla leen tax a jóg waaye malheureusement aw jaar ci ay yoon yoo xam ne dañuy dajeel maam lu waay xam doy na ma ne wax lépp ci ay ci ay vidéo waaye daal leen daal leer na mooy wallahi lazi la ilaha illa wirdu baree baree bare bari ñu ngi la koy sànni ci tiktok bi di la ko sànni ci réseaux sociaux yi mu ëpp li nga xamante ne nii moom mooy téeméeri yoon soo ko jëfandikoo wee mën ngaa installer sa bopp ay jinne ay rab ay rawxaan yoo xamante ne nii nekkuñu woon ci yow balaa ngay jëfandikoo li nga xam ne mooy wirdu woowee am na sama benn yaay joo xam ne ay bëtam ci la demee daa gis benn wirdu ci internet rek benn waaye da jàngale naan baat te léeg-léeg baat yi ñu lay wax ay baatu diine la ay xasbi allah ay bismillah basmala wirdal basmala cent vingt et un fois wirdal lixlaas cent quatre cent fois wirdal alam nasara dégg nga ay baati alxuraan lañ lay wax ak ay baati diine lañ lay wax duñ la wax ay wax kii baati diine léegi la ñu tabaxal si ay tur yoo xam ne doo xam ay yaa karamozoog yaa karkamandaag yaa yaa yaa yaa yaa suhey yaa suhey bunna ay tur yoo xamante ne nii dañ ko ci dugal mais comme day am yaa rek yow mi jàngut da nga jàpp ne tur yàlla la su ko ñoom dañ lay gëmaloon sax tur yàlla la su ko defee boole ci ay baat yu ñëpp xam ay alhamdulillah subhanallah allahu akbar jox la lim boo xamante ne nii romb na diine muy ñaar muy téeméer yoon romb na diine di dem nga ne ci di wird jafe-jafe yi mu lay indi kenn xamu nu mu toll sama yaay am na sama yaay joo xam ne ay bëtam ci la demee ba tey mënatu la gis ngir benn waay bu mu romb ci réseaux sociaux yi muy joxe wird rek joxe ci ab lim joxe ci ab joxe ci ay dige moom mu jël wird wi di wird daa jékki-jékki bët ya dem mënatu la gis daa jékki rek bët ya dem mënatu la mënatu la gis ba jamono ji may wax yéen mënatu la nekkul di gis. loolu ay musiba la yoo xam ne li ma ci gis dafa bari li ma ci xam dafa bari lii nag alerte la bu ñuy defal société bi yépp diine des koy jëlee ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye des ko jëlee ci ay réseaux sociaux ak fu nekk ak yu ni surtout ay lim yoo xamante ne nii ëpp na te lim yi waxoon naa leen ko dafa am ay objectifs yoo xam ne ñoom ñu koy joxe dafa am luñ ciy dàq nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. nañu yem foofu ba beneen yoon ñu ñëwaat ci beneen tomb boo xam ne li mën a xëcc seytaane xëcc ay rab xëcc ay rawxaan jëmee ko ci yow te doo ko xam mu gën a leer ci kanam bu soobee yàlla noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa axiru dawaan alhamdulilah wasalaamu aleykum